doesn't ci na ko kula amul lu ci di ba tey ci seen scandale du jour de ce vendredi janvier dama bëgg ñu seetaani vidéo bi ñëwaat. génn ci élection président am su benn cour wala benn tribunal bu mën a dugal loo xam ci. processus conseil Conseil, de la république conseil mhm. résultat mom euh, euh, installer le prochain président de la république. Mhm. donc responsabilité conseil de mhm. ah, processus bi élection bi proclamation bi investiture bon imagine-toi que ñu ngi ci mois de janvier mois de février mars ba avril amatul un juge politique qui a wax dara euh, les sept sages mhm. donc la responsabilité bu et la et responsabilité bopp boobu nag manque de confiance conseil conseil il faut que nous ayons confiance ci nous. kon yaakaar naa conseil constitutionnel nous jël ñoo yor une décision ñoo am droit décider kuy dem ak ku dul te nag dañoo teg ay sart du question yow sa kanam neexu leen rek dañ lay écarter noono non c'est pas leurs loolu seen yónnewu ci ñoom dañuy saytu li nga xamante ne moo war candidat bi moo war ki bëgg a jiite suñu Sénégal da koy saytu xool lii boo ci nekkee waroo jiite liikat boo ci nekkee da waroo nekk candidat ci loolu lay saytu te loolu wax na ko yoonu police néew ci yoonu président Macky Sall néew ci yoonu kenn néew ci conseil constitutionnel ñooy jël décision yooyu. le 20 bu ñu publier liste bi sénégalais ngal la nañu xam ni ñii ñoo war a bokk te bokk nañ ndax ñoom dañ leen fi teg pour ñu saytu ndax ñëpp mënuñoo saytu bu fekkoon tey. ci xelu sénégalais yi la ñuy demee wala ci jugement sénégalais yi kon ñu bëri tey éliminer lañ leen kenn du leen doon éliminer mais dafa am ay charte yi ñu fi teg yi war a éliminer nit ki bu méngoowee ak sa candidat dañ lay éliminer charte yooyu boo ko remplirul dañ lay illuminer donc le 20 ngal la conseil constitutionnel mi yàgg décidé mi décidé woon mille dix 2019 ñiy dem ñu nangu ko mi décidé woon l'an mille ñu nangu ko ak yeneen ak yeneen élection yi fi jot a jàll ñu nangul leen ngal la constitution boobu moo fi nekk ba léegi rien n'a changé donc ñoom bu ñu décidé ku ñuy jiite kuy dem élection parce que ñoom mënuñu décider kuy jiite ñun sénégalais ñoo mën a décidé mais ñoom la yàlla may fii ci àdduna ñu décideel ñu ne liste bi kii ak kii moo méngoo ak chart yi nga xamante ne ki war a jiite suñu président suñu suñu Sénégal gi am na ko layoo na ak moom méngoo na ak moom mérité na ko mu ne la dem leen li ci des nag ñun sénégalais ñooy voté ñooy tànn tey bu fekkee Idrissa Seck dem na Amadou baa dem na Anta Babacar Ngom dem na euh, Déthié Fall dem na Boubacar Camara dem na mais boo demee voté ji xoolal ki la doy nga votel ko loolu yoonu conseil constitutionnel nekku fi mais maanaam le fait que ñu saytuwaat list bi parrainage yi ñuy xool génnee liste provisoire yi coow li jug ñu war a génneewaat liste définitive bi liste définitive bi bu génnee ngeen xam ne loolu yoonu président Macky Sall néew ci yoonu police néew ci benn juge mënu ci dara ñoom ñooy saytu loolu te buñ ko saytoo jox ñu ko moom la ñu war a jël de toute façon mënuñu ci dara ñi war a dem ñun liñ ci mën mooy jël sa carte dem votel ki la doy te ñu bañ a voté émotion ñu bañ a voté ni kii dama koo mere ñu bañ a voté vengeance ñu vote li nga xamante ne ñu votel ki nga xamante ne du doon pour mer xam nga nee nañ boo takkee jabaru faju mer doo ci am ndam waaye gis nga bu ñu voté suñu candidat yi nga xamante ne ñoo war a dem bu ñu voté ndax lan Idriss sa Seck neexuñu ndax lan dañuy venger Ousmane ko bokkul dans deux ans laa leen wax dinañ toogaat di ko rëccu di jooy di matt suñu baaraam te bu leen fàtte ne du amar ba deux mille dix neuf deux mille vingt neuf autant pour mois donc bu ñu voté ci mer bu ñu xool suñu émotion sénégalais nag xolo ko sonal xool moo ko sonal. bu ñu xool kiy victimisé wu nañu xool koo xamante ne teg na fi programme boo xamante ne am nañ yaakaar ne buñ ko tegee ci suñu Sénégal gii ñun jeunesse bi dinañ gën a ne alhamdulilah mag yi mën a tem mag yi dem mën a dem toog noppalu te loolu programme bu baax moo ko mën a def encore une fois bu ñu voté ndax suñu xool neexul ci kii ndax kii dafa gàtt ndax kii dafa ñuul on n'a pas besoin de ça li ñuy soxla mooy ki ñuy jëmale kanam te démb wax naa ko te dinaa ko waxaat ki war a wuutu président Macky Sall il a de sérieux problème wala elle a de sérieux problèmes parce que fi mu fekk niveau réew mi la fi mu fekk niveau réew mi xam nga boo liggéeyul président bu fi nekkee liggéeyul ki ko war a wuutu munoo sonn mais koo fekk mu liggéey ba teg lépp nga war a continuer wallaahi am nga problème te sénégalais yi dañoo mën a fàttali doomu aadama te du ñu fàtte. te boo jéemee fàtte dañ lay fàttali force donc nañu xool ki ñuy fal nañu xool ki ñu doy te bañ a far ci suñu émotion bañ a fal nit ki ci parce que damaa mere kee damay faj mer ne soxlawuñu loolu conseil constitutionnel décision yi mu jël ngal la nañ ko respecté te xam ne ñoom lañ fi wóolu teg leen fi te yàgg nañu jël décision yooyu ñu koy nangu donc nañ nangu ñi ñuy tànn liste définitive bi nañu xam ne ñoo ñoo war a dem li ci des ci suñu loxo la nekk ñun sénégalais ñun ñi war a voté ñooy xool te nañu xool ki ñu doy te bañ a farfarloo ci lu amul fulla amul fayda ci loo xamante ne daf maa neex parce que boo falee nit ci mer bis boo giifii di nga ne waa man kii bu ma koy fal fal sama xel fal la nekkoon nañuy fal ak conviction nañuy fal ak intéret général pas intérêt personnel bu ñu falee ci intérêt personnel dina doy waar de ah baax na. jadi jadi. yow nga daw. yoon li nga jël di fii waay. loolu ci ñaar nga góole. xaw ma nu mu ngi ci di doon yaay.